ay ayca jërë ngeen jëf mbokki internet yi ñi ngi amaat mbégte bu baax a baax ak contentement di jàkkaarloowaat ak yéen comme ni leen koy toppale lépp loo xam te ni moom moo di actualité lu jëm ci làmb rek mbokk yi dina leen ko toppal yaakaar naa ne ki ñu invité daf suñuy nit koo xam te ni ndaanaan la ci réew mi koo xam te ni kenn dootu ko présenté ci réew mi waaye kenn dootu ko présenté tamit ci internet yi nga xam ne yéenay si pour Fekke TV muy nit koo xam ni nee na leen naam bu làmb dee am day génn daal di ne bërëb sàngam wala bis sàngam nangam ak nangam dina am ci làmb ji te noonu lay demee bu ñu ko waxee nag mbokk yi yaakaar naa ne yéen sax xam ngeen ki may wax ndax miin ngeen ko suñuy jataay ak moom miin ngeen ko suñuy pelloo ak moom ki leen koy defal nag moom moo di makaan comme ni ma leen koy toppale actualité la ñu wax làmb la ñu wax waaye ku ne gis na ne nag ki nga xam ne moom moo di booy Niang ak ki nga xam ne moom moo di motloo seenu fes to face keroog dimanche lan lañ ci jàngat kan moo toog ci ndam li kan nga jàpp ne mooy daam ndax le premier janvier soreetut ñu war cee waxtaan lu bare bare bare bare bëri mais dañoo toog koo xam te ni ndaan ndaanaan la muy champion koo xam ni nee naa la cantal mara moom la xale yi di wër de Bambo la solution solution nuyu naa la dañoo xuloo woon nag mais juboo nañu léegi nuyu naa la auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani ginnaaw bu ñu sante yàlla julli si yénente bi di santaat samay waajur bu baax a baax baax di sant kilifa diine yi kilifa aada yi di sant surtout Sénégal bi ñu ne di leen di sant bu baax a baax di sant diaspora bi di sant ñëpp daal mm-hmm. jërëjëf maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar Makan. yaa gis nga ne li nga xam ne moom moo di actualité lu jëm ci làmb gëj nañu peloo ndax dama la mere woon xam nga gëj nañu def li nga xam ne moom moo di émission ñu gis dimanche bi passé jàkkaarloo Boy Niang ak ki nga xam ne moom moo di motloo Lo seenu jàkkaarloo loo ci gis. waaw ñaari mbër yoo xam ne ñaari mbër yi dal euh, ku leen xool dem xam ne bëgg nañu li ñuy def mais dafa am loo xam ne da ci nekk mu am ñaari gàllaaj yoo xam dafa xaw a nëbbu. waaw ma am tamit lu ma ci gis mooy li ma waxoon Ama Baldé rek laa waxat boo Niang bu mu nee écarté tuuti mu écarté tuuti Pikine waaw waaw mu ne écarté tuuti ne écarté tuuti rek ndax lan parce que Pikine instant bi dafa xaw yàqu daal waaw mooy lu ma waxoon keroog laay waxaat rek Pikine dafa yàqu instant yi carrément mbër mbër di xëccoo tiitir sax waru fa ngemboo waaw wala tam bu fekkee dafa bëgg ngem boo foofu uhuh. na fa dem ay ñan uhuh. waaw ci fu mu dëkk na fa dem ay ñan woo mag yi dem ñu def ay ñaan bu ko defee incha allah rabi mu dem xare ji uhuh. mais bu dul loolu dafa bu am biir Pikine wala dafa am yàqu-yàqu boo xam te nii ci mbër yi la wala lan la yàqu-yàqu bi loolu ci euh, Pikine la parce que boo xoolee Modou ba muy jël roi des arènes ci Eumeu Sène la ko jëlee waaw léegi boo xoolee Eumeu Sène tamit boobu léegi dara doxul waaw ko loolu nag biir Pikine la nekk boo xoolee soq yoon bu mu jëloon ndax léegi boo ko da ngay xoole ci mbëri ba ci mbëri ndaw yi sax am na ñenn ñoo xam ne day seen gàllankoor mooy ëpp léegi waaw moo tax foofu nag pour mu pour mu dégg daal yi il faut que euh, mu xaw a wane ginnaaw daal mm-hmm. waaw mu xaw a wane ginnaaw Pikine tuut nga nga nga nga gis ñaari mbër yi gis nga ki nga xam ne moom moo di Modou Lo gis nga ki nga xam ne tamit moom moo di booy Niang ñoom ñaar loo jàngat ci ñoom kan moo jekku ku gën a nekk ci làmb ji kan moo gën a pare ci ñaari mbër waaw euh, Modou moom pare na waaw Modou pare na boo Niang te wax dëgg yàlla pare na waaw wax dëgg yàlla pare na te am na tam loo xam ne tam moo ngi koy nëbb. waaw lu wér lu nekk ci moom lu loo xam ne bëggul sax euh, nit ñi xam ko. Mhm. waaw mais te moo dem toog na si lu leer. Mhm. waaw moom Modou yëpp wax dëgg yàlla. Mhm. moo tax combat bi daal cinquante cinq la instant bii nii kenn mënul ne. diw moo moo moo jeeku mm-hmm. waaw. Mm-hmm. kenn mënul ne diw moo jeeku. Mm-hmm. ndax ñoom ñaar ñëpp cinquante cinquante la mais tamit en tant que nitu làmbu analise ci doole ci kàttan ci ñaari mbër yi. waaw bu fekkee dañuy analyse moom ñu bañ ñu bañ a jël ñu jël xam-xam tegee ko nële analyse man su may euh, nekk na nit boo xam ne dafa xaw a naqaree bëreel mais lu muy bañ tamit dafa nekk ci Boy Niang li muy bañ dafa nekk ci Boy Niang Boy ñaa dal na teey na te xeexam jaar na yoon bërëm tam jaar na yoon loo ko may balaa ngay xémelu ko mu daan la dem ñibbi waaw waaw na bu fekkee lu mu bëree kon du Ama Baldé moom la nar a bëree am Boy Niang dañ koy lënga de ah waaw mais daan na mais bëre bi teg ko ci yoon bëre bi teg ko ci yoon xeex bi teg ko ci yoon nga ne li mu bëreeg Ama Baldé bu ko bëreeg Boy Niang ñu lëng mot loo yóbbu waaw bés bu ko defee parce que Modou boo xoolee mbër yi ko sut chaque jour dafa am foo euh, jafe-jafe boo xoolee ba ci Lac de ba ci Bombardier ba ci Balla Gaye mais ku mu tollool mun doo indi problème dangay daan vite fait dem yoonam nga kon bu bëree bu bëree li mu bëree ak Ama Baldé nañ ko lëng daan ko ba ñibbi boo ñaa du du du ñeexu ñebee tamit boo ñaa du du du ñeexu ñebe kenn dëgg yàlla parce que calcul moo bari waaw moo Modou sa wax na ko. nee na bëre Boy Niang moo gën a métti que bëri Ama Baldé. calcul moo bari. ma ma ma ñëwaat ci li nga xam ne moom moo di foofu mën nañu gis bu bis par le premier janvier gàllaaj feeñ fa ci diggante Modou Lo ak ki nga xam ne moom moo di booy Niang mën nañu gis gàllaaj feeñ fa. waaw gàllaaj na nag buy feeñ ci digg géew bi la. parce que mooy li ma la waxoon ci ba may ba may tàmbali samay wax rek. ñaari gàllaaj yu yu yu nëbbuloo la. boo xoolee ñoom ñaari ñëpp dañu xaw a njuru ay ñoom dañu am baatu ñoom ñaar ñëpp. dañu am baatin ñaar dañuy dañuy njurum ñan ci combat bi dañ jur ay gàllaaj moo tax lépp luy feeñ ci diggu géew bi lay feeñee yaay ngi doon waxaat diggante booy Niang laa lay wax ak pikin Pikine nga ne daa am ay yàqu-yàqu yoo xam te ni dafa am biir pikin maanaam ci ay bari na fa ñu fay waro ñu baree baree bari loo xam te ne dañ fay jële defe tey na la ñu mën a def ba loolu changé Pikine waaw ñu def ñan fu ñu dëkk rek ñu def fa man fekkoon man maa indi Boy ña du fa ngemboo du ngemboo Pikine fan lay ngem mu ngemboo feneen fu mu fu ba muy bëre Balla fu mu ngemboo. Mhm. na fa delluwaat. Mhm. nafa fa delluwaat. Mhm. mais bu ma nekkoon moom de ah comme baa boo xam ne kenn woowu la ci. doo ci mën a wax lu bari. mais li ma wax mooy bul ngemboo piqué. waaw boo amee na feneen fooy ngemboo nga ngemboo foofu moo gën. comme jóge nañ ci li nga xam ne moom moo di Boy Niang ak Modou Lo dañuy dugg ci Diène Kaïré ak Zarko yaakaar naa ne tamit loolu Ibou Laye production moom moo ko tëgg. Mhm. te yaakaar naa ne combat boobu tamit li ci des bareetut tey ba mu doon waxal Diène Kaïré Zarko. waaw su ma wax moom Diène laay wax rek. ndax lan waaw na gën na gën a yokk taxawaayam fu mu taxaw baax na na gën a yokk taxawaayam na gën a góorgóorlu ragal féete day xañ a wërsëg man Diène Kaïré laa faral. Mhm. te incha allah rabi am nañu yaakaar ne mooy daan. gëm nga ne mën na daan ki nga xam ne mooy Zarko. mooy yow Zarko ñu mënoo bëre Diène du ñu benn. déedéet du ñu benn. Ajjuma Diallo ñu mënoo bëre ak Diène Kaïré du ñu benn. nga ne Ajjuma Diallo. ñu mënoo bëre la Diène Kaïré benn. Diène laa foral Diène laa foral xam nga ragal féete ma day xañ wërsëg. moom laa foral te ci kàttanu sunu borom làmb ji du yàgg. Diène Kaïré Zarko nga làmb ji. du yàgg de. Diène da daan bët. toog ci kawam. waxu sëriñ la wala waxu far. mooy waxu for la ah, waxu sëriñ da ngay daan ba toog ci kawam. jën kay rek nga ne day daan. ci kàttanu yàlla day daan Zarko tele laay waxee. vaar am na de. mooy yow yàlla rek ñun ragul ñu vaar lépp dañ koy bàyyi si loxo suñu borom rek ragul ñu vaar de jën da ngay daan bu soobee yàlla yeneen bi. gën a jën day daan. incha allah rabi. jën boo la xoolee ci qualité bëri bokkuñu. Zarko si lu mu koy yaakaaree. mais Zarko ndaanaan la no non kenn wedul ko ndaanaanam. mais maanaam lu mu yaakaar ak li mu foog amul. ne dam toog ba jamono neex rek xam na day ñëw daanu. bis boobu mën nañ ci xalaat xeex. non jën moom képp ku xeexam moom dangay ngay da nga indi da bopp rek ndax feteel bu bu déclenché rek tey nga am ah. waaw moom day fete. jéen jéen jéen bu xeexee xoolal yow ngay xoolee ci Modou Lo Papa Sow man saa bu xeexee rek sama xel ci ñaar ñooy lay dem. waaw ah, mën na xeex. waaw moo tax Zarko daal lu ma koy lu ma koy lu ma koy lu ma koy digal bu arbitre sifflé jàmbaar nga nag ñëw rek yooru nga ñëw rek teel a tëdd jéen daan la nga dem xool leneen après sa diggante ñaar bu ndaw nga lijjante ko. lan la. sa waay da daan. ci baatin. waaye yow man du ma si lu ma gisul de lu ma gis lay wax. dama leer nañ. Abo Zarko ndaanaan la de. waaye ndaanaanam. Zarko saay saay la de. Zarko xam nga làmb par biddéew la. waaw waa moment bii ne du biddéewam. waaw fu mu jëlee làmb ji moo baaxul. fu mu jëlee làmba ju baaxul. na gën a liggéeyaat daal. waaw pour beneen combat mais du combat bii de. ay li ngay wax combat bi moom pare na ci moom. moom Zarko. waaw. combat moom pare na ci moom wax dëgg yàlla. Hmm. xanaa beneen làmb. Hmm. mais du làmb bi. Hmm. taxawaayu tanoor yi làmb ndax si te tamit ku ko xam xam ne bëri na ak Lac de mu gis combat ni mu demee ñu gis tamit ñu koy wax digganteem ak Balla Gaye coow li bari trop diggante Siteu ak Balla Gaye boo ma ci doon wax tey loo ma ciy wax Siteu Balla Gaye Balla Gaye Siteu daal lu ma koy mën a wax mooy bu mu yàqamti parce que àdduna lu jot rek dina yomb. Mm-hmm. Balla def na lu ne ci làmb. Mm-hmm. te Balla Gaye tamit euh, dëkk ko na ci média neex na lool. Mm-hmm. waaye bëri moom ak a jafe. waaw. li ma wax ci jéen kay rek laay wax du ñeexu ñebe kenn. moom waaw. gën a jege gën a yey nag. waaw ragal féete itam day xañ a wërsëg. ndax kii di Balla Gaye. Sa euh, si ñoom laa bokk. waaw. mais mais mais xam nga ne Siteu tamit dafa bëre ak Lac ñu gis ni combat bi demee xel yëpp dem ci Balla gay xel yëpp dem ci Ama Baldé tey bu doon digal Siteu ci ñaari mbër yooyu kan la ci war a gën a mën a bëreel. waaw dañu jàpp la mais Balla daal leen laa wax rek saa bu paree pour bëre man leen laa ca mu ne ma pare naa pour bëre mu woo ma téléphone ne ma pare nañu ñu doog a jël combat boobu mais nañ ko fay lu ko jar. te buñ ko fay incha allah rabi si de dina xam ne lu mu doon wax lu muy lu muy def du benn de. waaye yow. moom aussi tam màgg na de. waaye ñooñu samay ñooñu ñooñu xam nga nag yàlla mooy boole ay doomu aadama. mais fayu boobu noonu yàlla suñu bon dama boole si ñoom ba pare. am mbër bu ñu mënta bëreel ma ñoom laay àndal ñoom laay foral ñoom laay indi esaat. ma yëg ko ma ñàkk ko yëg ñu woo ma ñu li nga bokk kenn du la ci woo sax. man loolu dama ci bokk te incha allah rabi làmb bu bu taxaw rek muy côté Balla Gaye ak Sa Thiès ak mbër boo am na problème ndax lépp lu ma ci mën pour pour yàlla may leen ndam dinaa ko ci def te incha allah rabi Balla Gaye mii fu mu bu nekkoon ci làmb dafay ñëwaat. ah est-ce que dina yóbbu bari ne Balla Gaye ñëwaat ci làmb. donc ne day ñëwaat. képp kuy wax loolu da xamul xam nga ndeysaan am na ñeen dañuy wax seen seen seen baxen rek. yow baatin ngay ñeen dañuy ut pour buzz ñun utuñu buzz. Mhm. ñun dañuy wax ci xam-xam. Mhm. Balla Gaye bu soobee suñu borom day ñëwaat ci làmb. Mhm. mën na nekk roi des mënoon na ko nekkaat. mën na nekk mën na mën na ko doon. mun na ko doon parce que mu ngi ci tànk yi mu ci tànk yooyu. te dina ñëwaat ci làmb. ci kàttanu yàlla xanaa mu bàyyi waaye bu bàyyiwulee wallaahi tele laay waxee day ñëwaat day bokkaat force. uma yow si te na ko de ay ku mënu daan la degee da ngaa mën a daan Balla Gaye ndax lan mënu ko daan Balla Gaye moo ko ba bëree moo ko bëree kan mm-hmm. lu Balla Gaye ci làmb deful xaaj bi mm-hmm. bu bu mu fàtte tamit moom kenn rek la fi daan si euh, si VIP Papa Sow mm-hmm. moom donc la fi daan mais bu mu jógee ci Papa Sow ba léegi daanu fi kenn mhm. sama mbokk Baye Fall la nag mhm. waaw mais daanu daanu gu fi kenn de mhm. nga Balla Gaye moo daan ñu jaayam na xam loolu ñu jaayam kan Yékini Yékini waaw Balla Gaye moo daan ñu jaayam moom saa kees daan ko waaw yoo mun la daan pare nga naan Balla Gaye Balla Gaye Balla Gaye waaye ñoom ne Balla Gaye nooy neex la mais garab ci kaw lay fekkente. waaye yow saa bu ñu fekkantee baala daan ko. ah ci kàttanu yàlla. am boobu Siteu màgg na de. waaye déggoo lu ma la wax de yàlla baax na moom moom bala Gaye doo dafa du bëre moom sax. ah waaye su bu bëggee bëre day jël kii ni ngay waxate waay. ama waaw Ama Baldé lan Ama daa sori moom nag xam ne duwul moteur mu ngi ñëw ci kaw te duubul koom de gars su ma daanee Mama ci moom laay ñëw. gars yi d'accord ñu de. su ma daanee Mama Lamine ci moom laay ñëw. est-ce que daan Mama Lamine. te incha allah rabi dama koy daan. ah. télé laay waxee. boo nga xanaa Mama Lamine bañ a bëre. si kàttanu sunu borom su ma daanee Mama Lamine ci yow si te yow laay ñëw. Ndakaaru ñoo ko moom. duubulu ko moom Ndakaaru duubul moteur Ada Fass Bébé Diène. Diène Kairé ab booy yu ndaw yi fi ne ñoo amel Lac Rose ñoom mbay guy gi xam nga bëri na ay mbër daal mais ku si nekk boo ayee yaa ko moom. waaw ku xewle yaa ko moom waaw moom. lan ngay tàggoo kàddu gi. di santaat ñëpp nag di ñaanal yàlla Sa Thiès yàlla may ko ndam ci ko ëmb seen te incha allah loolu sunu làmb la di ñaanal yàlla Double Moteur yàlla may ko ndam ci ko Mama Lamine. Mm-hmm. bu ñu waxee wax bu rafet yàlla sunu borom la. Mm-hmm. bu dëngee nañu xam ni ñun la ñu jéggal ñu. Mm-hmm. waaw di jox ñëpp daal di ñaan ñaanal yàlla daal si réew mi hmm. jàmm. maa ngi yànde mooy loolu ñun ñu gëmuñu succès de. succès bi bari mooy yow baal yooyu nañu liggéey rek nañu liggéey rek. Hmm. waaw nañu liggéey rek yàlla baax na. Hmm. jërë ngeen jëf mbokk yi kooku ñu dalal dalaloon moom moo di Bamba la Solution jërë ngeen jëf.